yëg ni moom nga naan daa sol ndox booy fekk nañ ko foofu mu yëngaluñ ko mënuñu ko daan Tyson moomu Tyson moomu noonu génération bii ni ñoom Modou Lô kii koo ko si daan waay Gris Bordeaux sol waay lan la Gris Bordeaux ko daan Balla Gaye daan na ko pare waaw lan la Gris Bordeaux Balla Gaye ko daan ba pare bo pare na bo pare na bo pare na bo Balla Gaye daan na ko pare bo Balla Gaye daan na ko pare fekkoon Balla Gaye daan sol ndox boobu mag la ak Tafa Gueye Tafa Gueye waaw nangul nan nangul nan waaye Tafa Tafa Gueye Balla Gaye dóoru ko Tafa Gueye Balla Gaye da kaa dóor dóor ay dóor ay ay ay kii wax. Balla Gaye ay mënante la lamb ji xam nga lan ngeen def ay mënante la Balla Gaye nangul mais Balla Gaye moom instant moom man seetlu na lamb Balla Gaye la. mais boo bëggee jël ay Balla Gaye. tey jii nii ba Balla tey jii nii. Eumeu Sène ak ni ni bëñ bi neewee. Amar gi yàlla bul waxaat bi février noonu bu ko joxaatee Balla Gaye mu daal non moom Balla Gaye bu nekkul buur lamb est-ce que bu ko joxoon Balla Gaye nii nii nii Balla Gaye buur lamb laa wax gars yi di werante Balla Gaye buur lamb buur lamb ñëpp daa fekk ñu nekk mag mais li ngeen wax moo tax ma wax mais li ngeen wax moo tax ma wax mais li ngeen wax moo tax ma wax lamb ji da ngeen di nangu ku si nekk da nga see am bête noire da ngeen a mënante waa kay loolu la mais man dama ni. seen zéro raison bi fi Balla Gaye def booy yi defuñu ko. loolu la dañ koy nangu la fi Balla def Balla la la fi def. Balla si comme si Balla même pas ñaata. ñaata kii Balla maa def def jël moom ana booy. ana booy. Balla daa ñëw boole seen bëre Balla daa ñëw Balla daa ñëw ñëpp naan ay ñii dañoo mën a bëre. Balla Gaye ñu daan moo daanu leen. wala Modou Lo ana Modou Lo Modou Lo daanu Modou Lo eh, si kaw Modou Lo si kaw Kalla Diar Modou Lo si kaw boo fi tuddee kenn kan la ñu ñëwaat si Lac de Guiers nu mu ko daanee kat appuis mi ngi noonu. nii la Gris Bordeaux deux nii la Lac de Guiers deux fois. xool leen foofu kay Balla Gaye rek Balla Gaye ñi da leen daan nag ba daanu. Balla Gaye sax te boo xoolee génération Modou Lo ay Modou Lo génération bi ñëpp ku si nekk ñaari yoon la bëre wala ma sax Gris Bordeaux ñaari yoon la bëre ak moom amul ci moom victoire Lac de Guiers ñaari yoon la bëre ak moom Eumeu Sène ñaari yoon Balla Gaye moo fi am ci moom ñaari yoon wala ma sax wala Balla Gaye ku si nekk benn yoon la bëre wala ma sax ma sax léegi la muy kulo débat Balla Gaye la mu la xanaa la moo tax Balla Gaye lamba Balla Gaye ba mu dalee bëre ba tey benn yoon la ma sax ma si mas nil ñaari mas nil la benn yoon la mas mas wala ñaari mas la wala ñaari mas nil la mais Balla Gaye nangu ay défaite ñaar défaite la am benn waaw mais ba tey moo ko moo la am na trois défaite Balla Gaye quatre défaite la am ñu am waaw benn Balla Gaye ëpp ay Modou Lo tamit quatre défaites la Modou Lo amee quatre défaites quatre défaites la bàyyi ma jol calculé quatre défaites la man billaay quatre défaites esaay moom wax sport def amatu fi comme ay soxor ak lépp dafay am lu neex la ñuy waxe esaay lu neex la ñuy waxe moom kenn dootu wax ah, logique moom mënatu fee am ndax esaay lu neex waay wax quatre défaites la quatre défaites la alors soxor moom comme ay muusu doxam fi am moom lu neex waay wax ka defe la am ka defe affaire affaire laajul ay ah daa yomb man CV man man mënoo mënoo da nga am mënoo ku nekk da nga am sa benn wax ku nekk da la nangul mënoo lim jël tey CV ba tey wédi ma dama la wax mënoo man da man daan ko sooy sooy Modou Lo daa mën Eumeu Sène daan Lo moo daan quoi nekk na roi des arènes mais buuru lamb rek Omar beneen yoon Balla Gaye mooy bëre instant yi nag du góor Modou Lo mooy roi des arènes Modou Lo waaw kullu xalifa waaw ñun a a a a kuy takku ceeb mën nga mais comme doon na ko rek baax. léegi ñoo ko njëkk a dégg léegi ñu léegi ñoo ko dégg baax am na ñu ko njëkk a dégg. wala man nangu naa wala dama ndàgg man nangu naa yàggee nga soxor. bala ngay yëngatee tey boo doon wax da nga naan bala moo ko. kan ñu takku ceeb instant mën nga koy soxor. waaw nangu na nangu na teel ma lii ma ñëw. il faut nga nangu loolu Omar boo nangul da ngay sonn rek waa nangu nan mais Balla Gaye daal mooy buuru lamb loolu moom moo mënu loolu mënu denc est-ce que Modou Lo mooy buuru lamb ma ne Modou Lo mooy lan buuru lamb Modou Lo ñaa Modou Lo buuru lamb mooy lan ki yor kuréel te Modou Lo day ñëw ñu ko jàppale combat day ñëw tax looy wooyee buuru lamb Modou Lo day ñëw parce que daa am ay buuru lamb de laay Modou Lo koy jàppale si lamb Modou Lo lamb yi dama koy wóoroo kon yow daa am ay buuru lamb de wax ma léegi la mooy buuru lamb xam nga taafa taafa Modou Lo day loolu day bëri moromam bu su nekk mu daan la trois fois non nag may lan mooy buuru lamb kan kan Yékini yow li nga xam ne la am du mu la nekkatu fi dama la nekkatu fi Yékini nekkatu fi nekkatu fi Yékini nekkatu fi de Yékini nekkatu fi sa ñëw sa génération mu ñëw def fi lu nga xam ne ñoom ñëpp kenn def ah buuru lamb Balla Gaye ñëw xamul luy buuru lamb eh, Balla Gaye nga war a commencé da ngay buuru lamb mooy déedéet loolu moom du buuru lamb moo nekk buuru lamb suñu nee la Omar yaay kat da nga naa man maay waaw buuru lamb mooy lan buuru lamb mooy ween nga ci affaire wax daf wax daf nga mu jëli wa buuru lamb yéen mënu ko bañ daa tëju daa tëju mooy roi mooy roi non non buuru mooy roi daa xam ne bu doon doon lay daa Diaby la sax noppi na da ngaa dugg foo xam ne. parce que dinaa noppi de parce que tey ma musul taxaw fi naan ay logique logique lii ba pare ay nangu li nangu ba pare taxaw di ko wax lu ko neex boo pare te moom kenn daa xam fu far fii la wax bàyyi naa far làmb bu farul làmb jéema so bàyyi naa far tey mënuloo daan bu ñu amee rek tamit far moo feeñ xam nga nag bëgg bëgg moo moo tax ma noppi parce que mënu ma comprendre nga wax logique ba pare naan bala ngay ñi fi daan ñëpp ay mag lañ ah nañ nopp bala ngay daa ñëw tey sa lamb bala ngay daa na xale. sabuure wu. waaw bala ngay ba fi daanee mënloo fii bala ngay ba mu daanee mënloo fii indi ngeen fi am seen. eh bala ngay ba fi daanee mënloo fii indi ñu fi am seen. na am seen am seen am seen ah El Hadj bala ngay ba fi daanee fii gars ñëw indi defar ko nan njokkas njokk nan ay ay rokas ak yooyu. ñu noonu ah. man ba tey sax dama kaa gëmagul. ba tey man góob moo. xaw gisoo moom loolu tag. loolu de xawala mooy beleñaa oh. bi xawala mooy beleñaa bi. Omar Omar bu bëggee débat mu wax ba mu débat Omar dem fii nga toog ni Eumeu Sène Modou Lô da koy daan. nga demaat toog ne da nga ni Modou Lô da koy dóor mu daan. tey nga ni li musoo ko xam na yoo xam tamit day damay waaru quoi mais dafa ndaw man loolu waaw yéen kay man ndagam sama machine bee di daw nga xamante ni bii ñun bu ñuy wax sax duñ ko dee waxatuma la ak yéen ngeen di wax may toll fee di ko dee. <laughs> débat bi kat Omar a fi Omar a amee débat. débat bi kon jóg na. Omar Omar àdduna noonu la ko Omar daal li mu leen wax leer na moom nee na ba léegi gëmagul. man de li ma lay wax moment li ma lay wax instant kenn mënu koo dindi si la. li ma lay wax instant dañu kaa mënut a dindi dañu dem xool archive yi ñu dem xoolaat fooy yi. CNG ñu dem teg ko fi. wax nga Balla Gaye nekkul instant buuru la am. da ngaa xam luy buur làmb moo tax. waaye buur làmb bu dee fi indi ay kii bi Balla Gaye bu bu dee ba bu dee buur eh, yow kon kon dese ngaa xam luy mu buur dëgg bu dee ci loolu la ñuy xool moom Omar Sam Modou loolu mooy xamul lu muy wax yéen instant yéen li yéen instant yéen xam nga lan la seen victoire victoire taafa taaf dañ a may loxo billaay leen mu ko du ma ko ma ko may ko may loxo si ko may eh. mu gaañoo la ba mu ànd eh, na ba gaañ jawar Modou Lo bi Balla Gaye daanoo lu mu waxoon du ma may du ma may loxo ku yi du ma may loxo ku nekk saako yi ma may ne ko loxo saako yi loolu su ma dégg ku seytaane la waroon daa moo bëri moo tax tey jii bu ñu waxee lamb moom tey bu ñu waxee lamb lamb rek si kaw. dañ koy humilier carrément c'est a bëri 29 minutes dem na Ardo deux fois kay. kan ak kan. Modou kay daa napp ëmm rek. Modou kay ëmm rek bi jàpp kii dama kaa bëriloo ba mu bàyyi xolam ma jàpp ko fii xala. non kay benn noir am rek da koo napp rek. mii nii mii nii. maam mii nii maam. maam pot baa nga ne. Modou Lo ëmm seen rek la fi jàpp ñoom. waaye ñu fi nekk yëpp ay nit nañ kaay ñu nii nañ eh, kaay jox ma kii nii euh, victoire par avertissement. beneen bi kañ jox ma victoire. bu jëkk ba ban ban at loolu si man biirum nit man yàgg na. Oh, li ma leen wax xool leen noppil ah noppil noppil ñu ah. tëdd jàpp suñu ñaam. <laughs> waxuñu dara. <laughs> ok. <laughs> napp nga ñu trop. Ah, ana yaa jàmme yaa jàmme ne ko yaa jàmme dama yàlla yaa jàmme dama yàlla wala quinze wala lay nox ay ñoo ay sa bu ay wala tus nga lu leen ay Balla Gaye bu doon mën a Balla Gaye fii ba tey gaa yaa ngi zible barke yàlla Balla Gaye daal yar gaa yi yar jaxate ngi nii ba pare nañ zoyo yaa jàmme wala yar jaxate ngi nii am moom nga xay fii la ba rek ni di wëjj mel ni yaa jàmme yaa jàmme waaw da ngaa bàyyi seen victoire bi. mu gën nag bàyyi suñu victoire bi mu gën nag. waaw waaw kii kii moo jël roi da ngeen di wax seen victoire nag nu mu demee. kii moo jël roi bi tey kii moo xew. ay Eumeu Sène waa Pikine du ko teeru dañ ko waroon a noq wala du ko woon teeru. teeru nan ko rek.